waaw mbires wonam koy nage rek yow fop jom alhamdoulilah yow tamo xe ɗo e eh? tamo xe ɗo mi mo nangan rek hmm. axa mais i ɗika yaw a gija compétir xa ken amata ke parce que fopa lamta nama ret to nen mais ñom moom nana ñom rek ne ñakana blessure ndiki ino koy anga leya bofa ndik netaxa koy mbaso quoi axa o jeg combat wo Mamadou Zidane hmm. nam waco combat fe Mamadou Zidane a ah, mi o wax rek fa yala rek moom ñoom moom kam bugin to fo so ɓeru den wonna ndiki mamusina moom wax rek bo santa mo ke man a que xaye a numta xam na affaire ke quoi parce que moom a minute jegim combat i nda ino ke ke ɓaran fop i mbiyan wax rek fa yela bo simna goy fop yontowa fop jega wa simo leng lima juum kamo juum axa yaam wa ɓisid waay yaam wa ɓisid waay te bis jëm ke rek ful na fa fit fa fokk dama def kami dem na itam xanaa fi fi dafa tak waaw ya halay ka fas ke ngina ndam dal eh fas ke halay ka gitma den rek bala ga deno amba amba amba ke ke ke fop angarit mi ko wax wax santa ma dina fop santa ma dina fop mo wax dëgg fa yàlla waaw bonne chance waaw merci waay ada Mama Zidane waaw bir ne nakaw waaw daa est lépp jàmm waaw alhamdulilah Mama Zidane nga am combat nommé waaw gis na Hmm. sant eh? yalla ya, ah. rek. do nga bëgg grand combat. waaw waaw. yak yahu ndang waaw ñoo wara bëgg combat grand combat inshallah waaw do nga jëlé combat. waaw préparé ni ñu koy wajalé rek. waaw préparation bokku rek waaw. léegi xam am na bés mom bés du bés bu yow. ni ñaan yalla may ñu ndam. mais yahu lu tax nga jël Mamou Zidane. ha lu tax nga jël moom lu tax lu tax nga jël yahu ndang la lamb rek lamb moo ñu boole rek. yow am nga si dara dañoo wut adversaire ya, ba sonu da bu ñame yahu ndang ni ñu jël ni ñaan yalla may ñu ndam adversaire la comme adversaire yépp rek mais boo fa ni combat ni na ma wàccan côté entraînement waaw ah waaye yéen nga comme ne mbaye mbaye jàkko mbako rek parce que comment wala mo fele de merde quoi entraînement physique sik contact fonde yu sik ñaab doole bi demoon ndam ah, waaw hay ka fas gën bu naan dem tan na dina pare na fi de ñu ne parce que sono sono trop trop trop mais nga daw ci ndam quoi yi way tefa diaspora be dem na ñoo jot fop weke be ko xaalis weke be tuyoodi mais kon Aja bonne chance. Ok, merci beaucoup. Aja Zandone. a Zamgo. Bonam koy. Nege gid ma ko. Mom jam. Mom jam kay. Zandone jeni ko meke meke na palma kay. E gyano injeli ko mbage de. Gid ma de na ko kwa. Aha. Est-ce que na eh, ko na hedit? E ma hedit. No ani num 100% da fu num meke gala kwa. Ko mbage mbana yi. Aha. Zandone lama wacu ko mbane de. Ko mbave. No wacha num mo refna kwa. Ko sa num na entraînement foofu daal mais i pare yaal mu osa nu refna daal i ngena xote ke ndam quoi c'est la première fois jea combat no me wala i la première fois jeda wala mu jeg combat jifir nda combat kana wa fi ten combat ke jeda de quoi nda rede na in wano koy ren i bonne chance lépp jaam lépp jaam. loolu yaa ngi yëgal ah, waaw ànd ak samay supporter rek. Ah. waaw. daa daa mel ni min laa fekk de. non mooy loolu min mooy loolu. Ah. yàgg nañ ci affaire yi. bés am nañ ko. Hmm. waaw mais dañ koy gérer. waaw. parce que am na kii wax ba ma comme li ma la waxoon ci rek. Hmm. ci site yi ko xamee nii rek maa ngi koy doog gis tey. waaw. donc nu mu waajalee combat bi. ah nu mu waajalee combat bi comme ni ma waajalee benn nu ko raw rek lu métti ànd ak samay mbokk ñëw. c'est c'est ba fii may borom. waaw. am te ñu ne léegi culture bi lépp nga gis gars yi la. parce que borom Touba jàpp rek daal. après mu jeex billaay wala yow. donc est ce que fas waa Caajaay. waa Caajaay ñu gën a jàpp rek man aw ma seen fay. barki Seydina Mohamed. Caajaay gépp laax nag góor ak jigéen mag ak ndaw dañuy dañoo sonn ci Seydina moom ma seen fay te defaluma leen dara. mais su ma jógee rek ñu jóg barki Serigne Touba Mbacke loolu it xam nga mooy loolu sama garant yi ñoom garant Moussa ñu ngi ñoom ñëpp sama ginnaaw ñoom Koli gars yi loolu dafa neex nga ñëw la ay mag bàyyi seen lépp ñëw waaw gars yëpp barki Seydina Mohamed ñoom Ousmane seen gars yi ñoom naati gars yi ñoom Assane ñan ñoom Ousseynou ñëpp a ngi ci stade bi barki Seydina Mohamed ñu fara ok amin waay dictionnaire waaw waaw Zambro naka ak ba léegi yaa ngi yëngal. waaw waaw lii sama période la ne. Ah. barke maam Seera Fall. nga am combat nommé. waaw waaw tey dama ñëw palmarès pour wane fi pour marquer fi empreinte. Ah. waaw parce que boo xam ne ci dëkk yu ma xam dama fee réewoon bëre. Ah. tey yàlla indi ma fi ma war fee bëre nommé. kon sant yàlla dama fi bëgg a wane bopp. waa dëkk ba dañ xaar waa Mboro yaakaar ma loolu. man mbëru dëgg laa surtout buur laa. waaw wóor na maam Seere Faal dëkk ba ñëpp ñu ngi may kon tey dama war a wane fulla ak jom ak fayda daal di daan dem ñibbi mais di ne ki nga wax a bëggal fii la dëgg à domicile est-ce que yaa ngi loolu xel waaw loolu maa ngi koy xel wóor na maam Seere Faal waaye nag dawul suma yaram non dawul suma yaram parce que damaa bëri fu a sori fii te yàlla dama dama ndam damay ñaan ndam sumu borom moo ndam mais man xam naa ne maa mën maa bu doole ah. te dinaa daan bu soobee yàlla ah. annoncé ma ko ma jël ko dëkk ba ñëpp bëggoon ñëw mais au moins moyen di di lancer encore une fois yi pour ñu ñu ma quoi parce que man mbëru dëkk laa dëkk ba inspi appel yaay daw daw daw fu lamb ji toll nee naa leen lamb ji jeexagul nañu xaar waaw di ñaan ñu ñaanal ma yàlla defal ma ndam di gërëm Cheikh Général le jeune saltige waaw jàppale na ma ci combat te bu soobee yàlla dinaa daan waaw Samb ja bonne chance bëggee Samb Samb naka wu naay kuul kay non xaw ma ko. non ah. non mosuma kaa gis sax xaw ma ko sax. Ah. billaay. Doudou nu mu waajalee combat bi. rek compétir rek ah. rek incha allah. billaay. c'est la nga am combat la waaw dama door am combat waaw. est-ce que ci yow euh, euh, nu mu joxoon pression bi. non man nu am pression si lamb yàgg naa ko rek. Hmm. Hmm. billaay. noonu la demee quoi sam. mais du du ma waajalee combat bi ci côté entraînement ci côté mystique. waaw comme dab rek ma waajalee saison yi rek noonu laa ko waajalee quoi parce que si biir saison bi la loolu la ko waajal aw benn problème ñu ngi ci rek entraînement mystique yëpp ndam rek incha allah billaay. vraiment sa fan club ñi lay bëgg ñi lay jàppale. waaw kontaan si ñoom rek aw ma seen fay quoi billaay aw ma seen fay waaw maa ngi leen gërëm bu baax. bonne chance yaa ngi waaw sax naka mu naaj lépp jàmm naaj tey wala ma mission déedéet booy booy bu ma booy wala ma ne Ada Fass loo wax booy benn booy naka mu naaj ah lépp jàmm waaw mais nag daa mel waaw waaw waaw dama la bëgg a signé waaw combat la de waaw mais nga fes ko fii à domicile Ngal miin nañ ko miin nañ ko bari nañ ay combat ay à domicile te daan waaw nga ne nu mu waajalee combat bi. entraînement bu bëri rek mystiquement entraînement mystique lépp laa indi waaw oh, nga ne rek bu la fas la koy jàppale. di leen di leen ñaanal daal aw ma man daal aw ma seen fay naa leen bàyyi ak yàlla mu fay leen remercier waa Diobass Doudou Diagne waa Ndiéguéniao Sanob de ñëpp Je ñëw quoi de remercier sama gars yëpp waaw di ñaan yàlla mu may mu ndam quoi bilaay di kontaan si yéen quoi. allo. Ikaf sa toog bagage. ooy jaaf mag ji. naka mu. naaj bi siyaare naa la. lépp jàmm naaj bi de continuer rek. si sa côté bu baax. damay sang ba léegi yaa ngi yëngal. leer. Hmm. bilaay indi sama confiance quoi ma xam ne leen làmb bi niñ ma ko tegalee moom wax dëgg su ma leen ko bëree lu rek kon sama waa dëkk dañ may mere quoi kon ni instant yi nekkul man kese la bi laa bëreel waa dëkk yëpp laa bëreel tamit maa ngi ziare waa yaayam tamit di ziare waa caalaan tamit di ziare képp waa Fimela waa Djilor yëpp bàyyi ma kenn surtout waa Fimela waa Djilor bàyyi ma kenn tamit di ziare ñëpp daal. bilaay walaay. jaayef am roo. amu kee woo ba ah amu kee woo ba. waaw ku ma taseel mosuñu bëre nag. waaye ren xaw nañ tase si ku waaw séntu naa si biir làmb ren quoi. waaw noo ah, tamit nga xam tamit ñu ma ay nit ñoo ma jiital tamit ma ne ko sam bopp laa waa dëkk laa bëral quoi ñëpp arrondissement fi mu laa bi daal mun na ñoom laa bëral waaw tamit da ngay xool ñi jënd ticket yi tamit aw ma seen fay quoi bilaazim yow tamit sam bo aw sa fay tamit yàlla moo la fay bu baax bilaa walaay talaay tamit booy yi nekk sama ginnaaw ni waa yaayam yëpp maa ngi leen nuyu ku turam ak santam kontaan tamit bilaay yàlla indi ñoom jaamu nañ delloo jaamu ànd ak ndam bi incha allah rabbi bilaay jaay fu dal ba jogo waaw dal ba jogo waaw da nga tit wala waaw da nga tit wala non non titu won wala da nga liw ma tek fe ñoo jor ah. ku ragal amu fa ragal amu fa billahi mais nakam nice yeb jam taw fe kay dal ba jogo nga am combat waaw est ce am ki wax ba de xamante wuñ nak xamoko musuma bo rek mom ah, musuma bo de no wajale combat bi combat bi mystiquement ak entraînement yeb hmm. billahi hmm. lepp lu mbor wara def ci combat am def nañ ko billahi c'est la première fois nga am combat nommé wala. waaw c'est la première fois waaw. li wax say fas mi ñu lay ñu lay jàppale. di kontaan si ñoom rek aw ma seen fay. billahi di kontaan si ñoom rek di ñaan yàlla may ñu ndam bu sedd guy. billahi jaajëf waaw. Adja Simion. Adja Sambro. naka wu. nice. lépp jàmm. sant yàlla kay. su nga am combat nommé. waaw. est-ce que nga ko bëggal. am naa ko bu baax. bu Ndaboye. waaw ba sant as non ma euh, mu waajalee combat bi. waaw préparé naa comme lépp. entraînement muy lépp. lépp lu war ci lamb bi waay. su ngay bëgg à domicile. loolu lu muy suyee ci dara comme lamb yi rek. bilaay damay bëre comme lamb dara amul ragal amul tus dañ koy bëre mu ne. bilaay su ma nga waajale combat bi. préparé naa ko comme ni mu waree. loo xam ne ci kaw mu ji préparé ko. bilaay ma jàppoon chance merci.